mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye jëf euh, Mamadou Mohamed Ndiaye ñu yegg si mbokk yi ak yéen ci gis-gis ak RFM di waxtaanee wàllu jàngoroy coronavirus ak euh, law gi ci àddina ak euh, matuwaay yeeg yorin wi fii ci Sénégal ak ñun ci téléphone bi professeur Daouda Ndiaye parasitologue la di directeur centre des maladies infectieuses nekk jamono yi mission ci ca Abidjan foofu la RFM jokkoo ak moom professeur Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa lay fay El Hadj Assane jërëjëf ci ànd beeg RFM euh, jàngoro coronavirus la ñuy la ñuy waxtaanee ak euh, gestion euh, jàngoro joojee fii Sénégal jamono yi yow li ci kilifa yi taxawal li ngeen ci taxawal dal na xel ak naka nga ko gisee. waa dañuy wax ne dal na xel. Mm. parce boo xoolee corona bi tey def commencé lëmbee àdduna. Mm. te Afrique ak Sénégal bokk nañ ci ñi nga xam ne toppoon nañu ci organisation mondiale de la santé li mu waxoon pour mm. ñu mën ko aar. boo xoolee tey euh, au départ dañ ne woon jàngoro boo xam ne ci benn dëkk la muy Chine tey ñëpp gis nañ ne génn na Chine dem na ci yeneen dëkk yi ci Europe yu mel ni Italie tey yu mel ni ak yeneen dëkk yi loolu lu ko waral mooy. Mhm. bi ñu leen waxee ne li ñu war a def euh, pour corona bi ñëpp xam nañ ne avant corona amoon lu mel ni Ebola ak leneen. loolu ñu ko fajee woon loolu la ñu waxoon nit ñu faje ko mooy jàngoro yooyu bu amee da nga koy confiner da nga koy da koy wër boobaa dëkk yëpp nañ ciy jàpp ñu wër ñu jàppale ku mel ni Chine. Hmm. ba nga xam ne jàngoro dafay am. mais boo xoolee li européens yi def mooy dañoo topp topp ñu li nga xam ne borom xam-xam yi la ñuy wax. dinañu jëlee seen doom génn leen ku nekk génne. boo hmm. xoolee tey li tax OMS dem ba naan euh, pandémie. Hmm. eggaguñ nag naam parce la situation est inquiétante mais ba léegi maîtriser nañ euh, c'est contrôlable. Mhm. parce que tay, ki li, xew euh, euh, Italie mën na xew fu nekk tey te li tax mu xaw a doy waar tey. Mhm. mooy ñaanuñu ko actuellement l'Afrique est exposée Afrique exposée parce que bu duggee Europe. ba mhm. Italie dafa am ay loraange. ba mouvement population dañuy am foofu la problème bi nekkee parce que tay, boo xolé, bu fekkoon li xewoon Chine mën nañ ko ba nga xam ne ñu maîtriser nit ñi ko am. mais tay, Italie qui ko fi njëkkee am xamuñu ba tey kan la. te loolu yaakaar nañ ne li ko indi mooy bi ñu nee dañuy jël nit ñi yóbbu leen xam nga jàngoro bu mel noonu boo koy yóbbu mën nga yóbbu nit yi. Mm. mais ñoom defuñu ay test yu nga xam ne xam nañu ne à part nit yi mën na nekk ci valise yi mën na nekk ci fruit. Mm. avec la génomique li ñu naan génomique. yi nga mm. xam ne moom la ñuy liggéey. moo mënoon wax ne fan la jàngoro bi jógee. ok tey y a que la Chine qui peut nous exactement. parce que ñoom ñoo yor code génétique ñoo yor base ADN bi. Hmm. jàngoro bi dugg Chine Chine est-ce que Chine la jug euh, bi jóge Italie est-ce que Italie la soso wala Chine la jógee. Hmm. mais li ñu yaakaar ñun ci suñu xam-xam ak suñu liggéey liñ ci wàllu mooy ce qui est clair gëm nañ ne même fekkente ne épidémiologiquement mënuñ def liaison bi parce que gis ñu premier kii. Hmm. mais yaakaar nañ ne bu ñu defee code génétique bi nga xam ne y a que les chinois ñoo am isolat bi. bu ñu ko permettre italiens ñu xam ne foofu la jógee mais li ci am solo ba am solo mooy fu mu toll nii. dëkk yu ci nekk muy Afrique. nga xam sen système de santé taxu ko dëgër mhm. dafa jot ñu renforcer lepp lu ñu def ben ñu def ko ñaar pa ñet mhm. parce que euh pandémie nak moy fo xam comme fekkee ne épidémie la Chine dañu ragal bu duggé ñaar continent ñet rek mhm. ak ben quantité nombre bi rek pandémie lay nek té ñu Afrique préparé wuñu won amuñu kàttan bi nga xam ne mën nañu lu melni mais eh, yalla dal xamal na ne fu mu toll ni système yi fi mu en place ba légui motax ba légui Afrique déggulo ben état boo xam am ko fa à part l'Égypte loolu mooy renforcement du système sanitaire li nga xam ne organisation mondiale de la santé wax loolu la euh, africains yi def. Hmm. la communication yi am na am na aussi lëkkaloo bu am ak ministère de la santé yi. Hmm. ak gendarmerie yi ba nga xam ne. Hmm. lépp luy dugg luy génn gis nga ay temps Sénégal am na ñaari bés ñaari bés ci ginnaaw. neewoon nañ amoon nañ ko ku génn woon foofu ñëw xaw a dem ba fexe nañ ba gis ko. te kooku jotul dugg. jotul dugg loolu mooy lu nga xam ne daal. Euh, mën nañ ko ci wax. jàngoro ji la ko xam ne doy waar nag mais la situation ba léegi.

seet bi d' abord. ak fexe ba yow fekkente ne yaa ngi gis koo xam ne jóge ci dëkk boo xam ne yaakaar nga ne am na fa. lépp luy symptôme bu ko la lu mën ni moom yow nga fexe ba nga moytu ko te loo ci gis rapidement ñu yóbbu ko ci hôpital bi mu gën a jege ba ñu xam lan la. su may daan la seen askan mooy malheureusement dama ci dellu ci Afrique li tax foofu la problème bi gën a nekk Afrique li tax fu ñu xaw ci tiit. mu toll nii ñetti dëkk yoo jël. kenn rek moo ko ci mën a soytu ba xam ne corona lu pas loolu du ab loolu malheureusement mooy li situation bi am. mais Sénégal pour le moment. en réalité ce que je connais du Sénégal par mmh. rapport à li ñuy def mmh. mooy yeyoon ak li organisation mondiale de la santé wax mooy te li fi teg teg na mais nous gën a soytuwaat nañu mmh. gën parce que fu mu toll nii dafa vigilance la moom mooy première chose bi ñuy def parce que amatuñu solution amatuñu choix. il faut ñu yokk très bien ko comme da nga nekk bitim réew ma jeexale ak yow benn ñaareel su ma ko euh, docteur Diouf maye ci wàllu chance euh, maîtriser euh, virus bi ci wàllu xeex bi kër docteur quelles sont les chances parce que ak léegi yéen a ngi ci chercheur yeeg yooyu mais daa mel ni ba tey mënaguñ ko faagaagal doomu jàngoro bi. waaw xam nga lu tax mënuñu ko faagal Assane moom laay damay dellu ci génétique bi virus la boo xam ne lu sew la te dafa am malheureusement ci coronavirus bi daan na fi ama lu mel ni ay SRAS amoon na fi deux mille deux deux mille trois yu même xeet bi la. mais bii ñu gis nii bi am Chine mooy doomu jàngoro boo xam ne jaanu kakatar la kakatar la mooy loo xam day. day day day soppeeku soppi melukaan sur le plan génétique. yan bi du sax yëre bi mooy li ci biir yaram bi. mooy soppeeku ba nga xam ne li li doon tax ñu mën ko faj am vaccin rapidement ñu mën ko def. wala médicament yi mënuñu ko am. malheureusement loolu tax mais euh, mënuñu woon gis lañ moo ko mën a kii. Hmm. mais fan yi ñu weesu. gis nañ ne virus boobu doon muté doon changé sur le plan génétique dem na ba stabilisé wu ba nga xam ne léegi chinois yi commencé nañ gis xam ne bañ xeet la. Hmm. mais comme loolu mu am moo tax boo xoolee ñaari euh, depuis le 24 février. Euh, euh, euh, gis nga ne situation bi parce que mm. chinois au niveau de la Chine génétique virus bi mm. même virus bi dina tax ba symptômes yi yaakaaram na mais malheureusement encore une fois sëñ Alcala Diassane damay insister yaakaaram na mais c'est aujourd'hui qu'on est très très très vigilant mm-hmm, mm-hmm. parce que euh, l'Afrique est exposée malheureusement l'Afrique n'a pas les moyens ce fait que na mon suba ñaanuñu ko yalla mm. mu am compte à l'échelle africaine il y mm. pays yu ko mën pas mm. tous les pays africains le Sénégal il faut dire que par rapport à li ñu ko ils sont sur les bonnes bonnes voies par rapport à la Directeur, professeur Ndiaye et bon séjour ñu ngi lay gërëm bu baax la santé, professeur Daouda Ndiaye ci Abidjan euh, docteur Alizouali Diouf mooy directeur de cabinet ministre de la santé monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr docteur Diouf maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar El jërëjëf ni ñu ko dégloo ak professeur Daouda Ndiaye dafa mel ni ñun Afrique Sénégal li ñu jig mooy prévention. waaw à euh, la Assane euh, maa ngi lay gërëm. Hmm. di wax rek ne jangoro yu mel bu amee. Euh, dafay am ñaari fànn. Hmm. fànn bu njëkk bi mooy euh, waajal ko balaa muy dugg sa réew. beneen bi aussi mooy fexe ba bu duggee sa réew. Hmm. nga mën ko teel a maanaam mu bañ a law. ñun nag comme dañu nekk ci phase boo xam ne doomu jàngoro bi duggagul suñu suñu réew. Hmm. dañuy farlu Sénégal ci ñaari aspect benn bu njëkk bi mooy renforcer suñu dispositif contrôle ci frontières yi parce que euh, gis nañu ne euh, feebar bi mu ngi law ci yeneen dëkk yi te bu lawee ci yeneen dëkk yi jóge woon Chine rek c'est que am ñu ko indi ci yeneen dëkk yi donc ñu war a renforcer contrôle bi ci frontière terrestre yi frontière aérienne ak maritime yi hmm. beneen axe bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey aussi mooy axe pare dispositif au cas bu amee benn ñu am benn cas rek ñu tel ko mun identifier pour tel ko jël en charge mais pour nga identifier ko. Hmm. il faut que personnel de santé bi ñu former leen ci feebar. ndax ñu mën ko ragné mën a ràññee hmm. il faut aussi que nga am matuwaay bu mel ni euh, institut Pasteur mu mën a def ay prélèvement diagnostiquer feebar bi. mais il faut aussi nga am foo xam ne malade bi bu feebaree foog nga koy yóbbu ñu commencer traitement yi. Hmm. moo tax ñu identifier ñeenti hôpital benn bi muy euh, hôpital Dantec benn bi hôpital général Idrissa Pouye ak CTO. Mm. beneen bi hôpital Fann ak li ñuy wax hôpital principal bu Dakar. mais fi mu ci jamono ñuy toll ni suñu focus ñu ko def ci hôpital fan parce que structure d'accueil bi fofu la gëna yato yaatoo. Mm. te foofu la gis ne euh, véritablement mun nañ fa tek malade yi en en isolation pour mën leen jël en charge. Mm. Maintenant, la maladie euh, symptôme yi feeñ l'autre difficulté c'est la période d'incubation quand même euh, jamono ak waxtu yi nga xamni ni ji mën nako nelaw ci yaramu nit ki sans sans que mu ami mandarga. waaw euh, loolu ben particularité la ci mm. Covid 19. Mm-hmm. Mo waral da ci am ay option ben option bi moy que malade bi nit ñi bu ñu joggé ci yenn zone yi nga xamné ne bi dafa nekk ñu.

au départ des vols voyageurs yi fu ñu munti jóge hmm. dinañu am information parce que dañuy lëkkaloo ak ñi nga xam ne hmm. mooy ñiy gérer les transports aériens police des frontières ñu ngi liggéey ak ñom ci biir aéroport donc dinañ xam ku nekk fi nga jóge sa provenance hmm. buñ ko xamee boo yegsee aéroport bu fekkee da nga jóge zone bu fever bi nekk bu ñëkk ba dañ daan dañ la daan jël yóbbu la waxtaan ak yow xol sa température waxtaan ak yow ba paré jël sa tur yónnee ko dëkk bi nga xam ne foofu ngay dem dali hmm. maanaam booy dali Thiès ñu yónnee ko région médicale Thiès hmm. pour que district sanitaire wu Thiès wala beneen district boo nekk ñooñu mën a def suivi hmm. mais bi ñu xoolee euh, barki démb lu dëkk yu mel ni Italie commencé am ay cas yu bari ñu ne dañuy réviser waat dispositif parce que dispositif rek doo ko teg rek ne foofu la yem chaque fois bu amee évolution da ngay xoolaat sa dispositif harmoniser ko évolution boobu donc biñu xolaté lolu ñu ne dootuñu sax avons di xaar euh, mal euh, avion bi mu ngi Chine wala mu ngi joggé Addis Abeba wala mu ngi joggé Italie avion bu Sénégal rek. Hmm. dañuy screené manam ñepp lañuy ci contrôle température. Hmm. waxtaan ak waral. ci fan ministre de la santé joxe na pour que ñi nga xam ñoo aéroport. nous hmm. renforcer en ressources humaines. pour que aussi sénégalais yi bu ñu wàccee au lieu ñuy seen rek ay caméra gis fa benn nit léegi ñuy seen kamera gis ay nit yoo xam ne dinañ mun waxtaan ak ñoom. Mm. ci feebar bi wax leen li ñu war a def bu ñu sentir yenn symptômes yi. parce mm. que loolu mooy tax. Mm. ñun Sénégal ñu mën a continuer. di mucc ci ci feebar. am na ñu réclamer docteur ci wàllu woowu justement poñ boobu ñu gën a euh, rendre rigueur ñu gën a yokk rigueur bi ci wàllu euh, surveillance bi au niveau de l' aéroport principalement bu Diass. waaw. Euh, y' a certains voyageurs yu yu déplorer quand même un certain laxisme. waaw xëy na du ma ko tuddee laxisme xam nga mooy li ma wax rek ay stratégie la bu nekk dëkk bu nekk dafa am stratégie mais stratégie du loo xam ne dafa figé mm-hmm. te euh, nguur gi dafa am euh, responsabilité bu toll ni sa askan buy wax lay yokkal ay contribution yu positive mm-hmm. mm-hmm. da koy jël en charge rawatina mu nekk ci environnement boo xam ne euh, dañu war a renforcer suñu vigilance moo tax moo wax sànq ne ci wàllu boobu dinañu dañuy yónne yokk ressources humaines yi parce que aéroport il faut que léegi ci wetu caméra yi ñu teg fa ay ressources humaines yu bëri loolu ñu ngi ko xëy na fii ak suba ressources humaines yi déjà nekkaat foofu en renfort hmm. mais beneen bi beneen bi ci gën a am solo mooy que ñëpp léegi bu ñu jaaree quelque soit boo jóge woon fii biir Ziguinchor sax boo wàccee aéroport ñu xool sa température hmm. parce que léegi hmm. ñu bàyyi benn espace de pénétration pour que doomu jàngoro bi. dugg fii am na solo eh, beneen jafe-jafe bi mooy wàllu communication bi naka la ñuy mën a def ba taxawee ci digg bi maanaam yee gindi nit ñi sensibiliser sans pour autant euh, dugal njàqare goo xam ni day jur ak donc euh, la frontière dafa xaw a xat de. waaw dafa xat moo tax euh, te te te yu mel ni bu amee. Hmm li ñuy wax engagement communautaire mooy engagement communauté bi bokk ci xeex bi mhm. dafa am solo pour que communauté bi bokk ci xeet xeex bi nag il faut que ñu déjà ñu xamal leen lan mooy feebar bi yan siñ lay manifesté woo comme ça ñoom ñu mën a jël seen matuwaay mhm. ñoom tamit communauté bi aussi mën a bokk ci détection cas yi nga xam ne ñu ngi ci gox goxaan yi parce que boo xamee ne feebar bi nii lay manifesté woo nga gis sa dëkkandoo bu ko am mais xam nga di nga alerter les les services de santé. Mhm. beneen bi nga am solo. aussi ñuy ko communiquer di utiliser tous les leaders d'opinion. Mhm. pour que nous ñu nekk suñu relais auprès de la communauté. Mhm. fexe aussi ba waxtaan ak euh, tous les les patrons de presse pour que nous appelions avec la communauté. sur la gestion des rumeurs. xam nga avec le développement des réseaux sociaux ku nekk dangay ngay dem benn jël benn information rek sànni ci réseau mm, mm, mm, mu mën a gaañ askan bi indi njaqare ci biir askan bi yooyu mm-hmm. dañ koy ñun dañ koy saytu di ko saytu bés bu nekk am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy xool mm-hmm. pour mën a corriger mais li ma mën a wax mooy booy xeex jàngoro mm-hmm. il ñëpp ànd ak dal moo tax rencontre boobu ngay wax noonu ëpp naa sax wàcc ndax euh, ku ne xam nga déjà yenn euh, erreur yi nga xam ñu ngi koy nemmeeku ci wàllu tasaare xibaar gi donc euh, yëgoo boobu ngay wax noonu seen digg ak presse beeg internet yeeg yu méngoog jamono yi du ñàkk ndax yeneen réew yi bu question taxawee d'intérêt national ñëpp dañ ci yëgoo xam ni nag lii mooy responsabilité bi ci war ñëpp. xam nga loolu commencé nañ ko. Euh, journalistes, sensibiliser aussi ñi nga xam communicateurs traditionnels. communicateur mhm. monsieur le ministre joxe na instruction pour que vendredi nous mën rencontrer les patrons de presse waxtaan ak ñoom mhm. pour que aussi nous ñu jël seen wàll ci bi ci sensibilisation ak ci gestion rumeur yi mhm. euh, El je Assane damay wax ne euh, gis nañ feebar bi li muy def ci dëkk yi moo waral euh, organisation mondiale de la santé gën a ñaax pays africains pour ñu farlu man maa ngi représenté ji monsieur le ministre de la santé fële ci Addis Abeba ci réunion Union africaine même discours lañ fa tenir. Hmm. loolu nag mu war a yee pour xam ne affaire bi du affaire wu état du affaire euh, ministère de la santé mais affaire au Sénégal le mhm. Sénégal nak dafa am lo xamné dañu ko xamé moy solidarité Sénégal dafa am lo xamné dañu ko xamé moy bu ñu face à une menace ñëpp tak seen ndig ñu mëna a xeex pour mhm. il faut que ñu am échange c'est basé sur la sérénité des échanges aussi basés sur un discours rassurant oui. et sur un discours véridique. très bien ñu dans di jeexale benn laaj rek laata nous lay bànga dellu ci liggéey bi ndax xam naa jamono yi moom yitte yi bëri na euh, bu fi duggoon mar détail ji est-ce que dañuy euh, continuer di xalaat ni ko ñenn ñi waxee wala sax xëy na ak ak ak of tàngee naan ah bu fi duggee de mardi détail yi da fii dina xumb lool wala mënees na am yaakaar ni bu fi duggoon du du lu kenn dul ñaan gaa mais euh, mook njort gi ànd est-ce que noppi nañ ngir xeex ak moom waaw mooy maa ngi lay euh, gërëm ci question boobu parce que question boobu dina permettre euh, ñu rassurer askan bi euh, ci li ñu nga xam ne ñu ngi ciy liggéey du rek pour fexe feebar bi bañ fi dugg. Mm-hmm. parce que daan nañ ko defoon nañ ko ci Ebola mais gis ngeen bi feebar bi duggee ni ñu gaawee jël en charge malade bi ba traité ko ba génne ko ci dëkk bi. booy liggéey ci épidémie yu mel nii aussi da ngay liggéey ci prise en charge ak mën a gaaw a fay lakk ji. Mhm. maanaam bu duggee nga gaaw ko mun identifier gaaw ko mun fay. Mhm. loolu moo waral ñu former acteur de santé. loolu moo waral ñu am circuit boo xam ne ku gis benn cas rek boo ñu avertiré ñun ñu mën a jël suñu disposition pour jël ko en charge. Mhm. léegi nag loolu dafa ànd ak dal. parce que du ko gis mu rek. Mhm. nga ne voilà ah ka fi kaa ñepp moytu wala il faut que sénégalais il faut que sénégalais ait une sérénité et il faut que nous xamné le euh, système de santé bi fi que nous wara am confiance ci système de santé mais aussi ñun système de santé Nous avons wara à l'écoute de la population pour que am dialogue dina leen rassurer te ci loolu ñu ministre de la santé yebal pour ñu koy liggéey. incha allah jërëjëf docteur Aloyse Waly Diouf ñu ngi lay gërëm bu baax euh, directeur de cabinet la bu ministre de la santé ñu koy gërëm ak professeur Daouda Ndiaye bi ñu àndaloon ca Abidjan par parasitologue la di directeur bu centre euh, des maladies infectieuses yéen ñi doon teewlu it euh, naka noonu RFM.